mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ñaar fukkeelu buntu ak juróom-ñeent ci suñu téere bi di risaala bu ibnu abi zayd al qayrawaani muy baabun fi dahaaya wa zabaih ñaar fukkeelu bunt bi ak juróom-ñeent tey jii moom mooy le 5 janvier 2020 mooy tombé git le 10 ci jumada al ula ci 1441 kon alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñu dellu siwaat ci suñu bind fiq bi suñu xam ni fiq mooy la borom xam-xam yi seggal ñu jële ko ci alquran ak sunna jëree mu gën a yomb a dégg ci mbooloo mi loolu bunt biñ ciy jël tey bu dee bokk nañ ko gis bu dee samaru daani bi yaa ngi ci trois cent quatre-vingt-dix suma juumul bu dee yeneen yit nga xool rek ñaar fukkeelu bunt bi ak juróom-ñeent ci bunt yi ni mu tegaloo ci téere bi waaw cent cinquante deux ci yenn traduction yi am na boo xam ne cinquante neuf la waaw waaw cent dix-huit naam kon incha allah ñu jël suñu bind bu njëkk day wax ne lii baabun la baab mooy ab bunt bu muy ubbi muy wone ne kon génn nañ ca la ñu nekkoon muy wàllu aj kii nag baabun la fi dahaaya ca la nga xamee ne ni dañ koy rey ca tabaskiya wa zabaih ak ya nga xam ne dañ koy rendi ci lum mën a doon wal aqiqa ak la nga xam ne dañ koy rey ci bisu tudd ba wa sayid ak la nga xam ne dañ koy rey ca lañu jàpp rëbb ko wal xitaan mooy loo xamee ne nii dafay aju ca jongal ga ñuy jongal na doon loolee góor la wala jigéen incha allah wa ma yaxrumu min al atima dana la jàngalit lañ ca araamal ci lekk yi wal ashriba ak lañ araamal ci naan yi kon bunt bi yooyu yépp da ko bëgg a tegale ngir jàngal la ko su dee ni yaa ngi topp téere bi ba tey mu ne wal udhiyatu la nga xam ne mooy rey ab gàtt ci bisu tabaski sunnatun waajiba sunna la boo xam ni dañ koo feddeli ala man istataaha ñeel ka nga xam ne attan na ko wa aqalu ma yujzi'u fiha la gën a néew ca lay doy ci tabaski min al asnaani ca âge bi bu ñu la ko doon wax mooy al jazu min ad daan mooy am kuuy ca xar ya wa huwa ibnu sana ca mooy xar moo xam ne am na at wa qiila ibnu samaniyati ashhur am na ñu ne mooy xar mu am juróom ñetti weer wa qiila ibnu asharati ashhur am na ñoo xam ne dañ ne xar mu am fukki weer wa saniyu min al maaz ak la nga xam ni dañ koy tuddee sani yu mooy ku tegale ay at ca mooy am na at ba dugg ca ba ca des wa huwa ma awfa sana mooy boo xam ne matal na at wa daxala fi saaniya ba dugg ca beneen at ba bu ñu daal daaw lu juddu woon ba teg ci même bu doon te ne ay fan dañu naan mat na wala yujzi fi dahaya du doy nag ca la nga xam ne mooy la ñuy rende ci tabaski min al maazi ca bëy ya wal baqari ak nag ya wal ibili ak la nga xam ne nii mooy giléem ya illa saniyu lu dul boo xam ne daa am ay at wa saniyu min al baqr la ñuy tuddee lu am at ca nag ya balaa dagana tabaski ma daxala fi sanati rabia fokk mu dugg ca atum ñeenteel ma wa saniyu la ñuy tuddee ay ku ami at ca giléem ya min al ibili ca giléem ya mooy ibnu sittu sinin mooy bu am juróom benni at kon mbokk ci bunt bi ñu ubbi day jàngale lu jëkk ci wàllu tabaski mu ni sunna la waaye sunna bu war la léeg-léeg dañ koy tax sunnatun muakkada allahuma lu dul lu mel ne yenn ngër yi comme abu xanifa ñoom dañ ne farata la lan mooy différence entre sunna ak farata mooy tànk ñi ngi naan sunna la rek mooy ku ko def am nga tuyaaba ju bëri suñ ne sunnatun waajiba wala muakkada mooy ku ko bàyyi def nga lu ñuy sib ci lislaam amma nag bu ñu ne lii farata la waajib la mooy ku ko deful def nga bakkaar kon dañuy wax ni la ëpp ci borom xam-xam yi ci bokk na ci mazhab Malik mooy bisu tabaski jot na nga am loo tabaski ba pare bañ a tabaski def nga lu ñu sib waaye nag waxuñu ni def nga loo xam ne nii lu xaraam la lu dul ni tabaski boobu it nañu xam ni mi ngi war kër gu nekk waaye warul kenn ci waa kër gu nekk kër gi tey buñ doon fanweeri ñett ñoo fi nekk ka nga xam ne mooy borom kër gi wala responsable ci kër ga rey am xar ñeel waa kër ga ñoom ñépp dañuy dugg ci biir loolu comme naka abi ayub al ansari nettile yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund day kër gu ne dañ fa doon rey xar gannaaw ba nag dañu gis nit ñi bu tabaski jotee xar yi ñu koy rey rey bu jéggi dayoo almuhim gannaaw ba la lay jàngal lan mooy lii doy ci tabaski tabaski la ca gën mooy xar comme ni mu ko nar a waxee ci kanam ndax tabaski dafa am ñaari cosaan cosaan bu jëkk bi mooy ibrahima alayhi salaam keroog ba muy jëkk rey xar da ko doon rey ngir jotoo ko ismail ci ndigalu yàlla lu bari ci borom xam-xam yi sax nee nañ xar ma ajjana lu ko yàlla jële jox ko ko jibril ma ko koy indil ci gàttal muy benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it def na madina fukki at waaye musa faa tabaski lu dul xar looloo tax la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne tabaski moom xar moo ci gën léegi-léegi nag am yeneen mazahib ñoom dañ ne gëléem moo gën nag topp ci ila axiri doonte ne ni jàpp naa dana ko wax ci bind bi bu doonte ne ne da ngaa aj màkk moom di def hëdiyu foofee giléem moo fa gën ñu ngi noonu ndax la fay daje ci mbooloo nga yéene leleen leel leen ci léegi nag xar mi kañ lay mat tabaski mbokk xar mi kañ lay mat tabaski mooy bu ñu demee ba ne kóoy la ma xam ne naan mbote gannaaw bu ñu ne kóoy buñ ne kóoy la mais kuy ñaata lay lay am foofee la nit ñi uute ci làmmiñu arab masalan boo demoon Saalum ñoom la ñuy tudde kuuy fokk mu mat un an kon dañ naan kenn du fi tabaski xar mu amul un an nga dem Bawol ñoom la ñuy tudde kuuy fokk mu mat dix mois mi ngi noonu nga dem Kajoor la ñuy tuddee kuuy mooy bu amee rek huit mois ca am na sax lu mu indiwul waaye am na ñoo xam ne dañ ne bu rombee six mois rek mat na tabaski almuhim kon daal ci gàttal mooy boroom xam-xam yi wuute nañ ci âge kuy mañee tabaski nu mu mën a toll la gën a néew li mu ci wax moom mooy juróom-ñetti weer donte ne am na la gën a néew luñ ci gis mooy am nañu wax juróom benn weer almuhim daal na fuñ ko taxawal gox ba nga xam ne xam nañu xar dañu xam ne lii am kóoy la mi ngi noonu loolu lañ mën a wax ci loolu léegi nag da ngay gis xar moo gën gannaaw loolu bëy mooy la gën bëy ba lañu ko mën a tabaski moom fokk mu romb at fokk mu romb at su dee ne daal wóor na la béy bii moom heure bii daaw fekk na ko judd na ba teg na ci dara mat na tabaski amma bu dee nag bala ñu koo mën a tabaski fokk moom mu dugg ci ñeenteelu atam lu dul nag ne benn nag juróom-ñaari nit mën nañ ko bokk te du tee ñoom ñëppay am tabaski benn xaru tabaski ñaari kër du ko bokk ñaari borom kër du ko bokk waaye juróom ñaari borom kër buñ daje woon jënd benn nag rey ko séddoo ñoom ñëpp am nañ tabaski waaye nag ba fokk mu am ñeenti at gannaaw loolu la ca tege muy giléem giléem fokk mu am juróom benni at doonte ne moom it juróom ñaari nit mën nañ ko bokk allahuma lu dul aaday Sénégal xamuñu loolu da ngay dem xar manki gaa yi di ramas lu ñu xam ay mbote yoo xam ne ni wóor na ne matul tabaski mi ngi noonu ca pourtant day bu doon teen rek xam nañu juróom-ñaari nit daje tey jii même bu ko nekk joxe woon cinquante mille sax da nekk trois cent cinquante mille ñu jënd ci nag rey séddoo da nga am tabaski loolu kon mbokk moo aju ci wàllu googee ñu jël beneen bind mu ne wa fuxoolu da ni lii di kuuy ca xar ya mooy bu góor afdalu min xisyaaniha moo gën xar ba nga xam ne dañ koo tàpp wa xisyaanuha afdalu min inaasiha xar bi nga xam ne dañ koo tàpp moo gën nga tabaski xar mu jigéen wa inaasuha afdalu min zukuri lmaas wa min inaasiha xar mu jigéen moo gën sikket bu góor mooy bëy bu góor moo gën it bëy bu jigéen mu ne it wa fuxoolul maas la nga xam ne mooy bëy bu góor afdalu min inaasiha moo gën bëy bu jigéen wa inaasul maas lii de bëy bu jigéen afdalu min al ibin moo gën nga tabaskee la nga xam ne mooy giléem wal baqri fi dahaaya bu dee ne nag waaw naam fi dahaaya loolu ci tabaski ba mooy bëy bu jigéen nga rey ko moo gën giléem moo gën nag su dee ci tabaski la ñuy wax wa amma fi lhadaaya bu dee ne nag hëdd yu la ñuy rey ca makka fal ibalu afdal boobaa moom giléem moo gën summa al baqaru summa da'nu baqaru mooy mooy nag summa da'nu mooy xar summa al maazu mooy bëy kon mbokk fii dafay teqalee ci tabaski ni mu toftalentee comme niñ ko waxee sax soo amee xar mu góor bu kuy bu kenn tàppul loolu mooy la gën waaye gannaaw ba mooy kuuy mu ñu tàpp loolu lu mu lay jàngal mooy kuuy mu ñu tàpp mat na tabaski doonte ne mën nga wax am na défaut waaye défaut bi day tax yàpp bi gën a bari gën a sell mi ngi noonu loolu moo tax ba yenn ci borom xam-xam yi sax dañ naan ñoom ñaar bi ci gën moo ci gën mais duna kuy bi moo gën tàpp bi xar yi li tax ñu leen di tàpp day tax mu gën a yàpp bi gën a baax ala kulli xaal kuy moo gën ndax yeneen ci bi kuy la doon tabaski soo amul nga jël tàpp soo amul nga jël béy bu góor kannaa bu bu jigéen ñu ngi noonu bu dee da aaday Sénégal nag moom xam nañ ni tabaskee nag ak béy nag ak gileem ñun du suñu aada waaye noonu la toftaloo bokk na ci li muy wax mu ne nag ki dem Makka moom la gën ci moom muy mu rey la nga xam ne ni moom mooy gileem loolu mooy la nga xam ne mooy la gën ci moom ndax niñ ko waxe sànq mooy hëdd yi ñi rey Makka lañ ci gën a jublu mooy leelu ci fuqara yi ci gis ngeen ba suñu jamono tey loolu ñu fay rey dañ koy tasaari ci dëkk jullit ñi di fàttali rek ne kon soo demoon Makka tey di jënd ticket bi ngay rey ci su ndar su passé boo ko fàttewul ki war a def tamattu daa war a rey ki war a def qiraan daa war a rey tamattu mooy umra génn ci doog a aj qiraan muy lënkale aj ak umra da ngaa war a rey su dee am nga kàttanu jënd tikke giléem su dee am na xamal ni loolu mooy la gën gannaaw ba nag gannaaw ba xar doog a ñëw a rasul sallallahu alayhi wa sallam benn aj la aj keroog bi muy dem Makka mi ngi yóbbaale cent giléem cent giléem jamono jooje mi ngi tolloon ci soixante-trois ans mu daal di rey soixante-trois giléem yépp moo ko reyal boppam nga noonu nga xam ngeen giléem ni mu ko nar a waxe ci kanam dañ koy taxawal takk tànku càmmoñ bi su ko defee dégg ñoo rek bojj paaka ci xol bi loolee ki xamul da naan waaye kii moo soxor fekk ne looloo gën ci moom boo bojjee paaka ci xol bi rek deret ji évacué d'un seul coup ci noonu lay gën a gaaw a dee boo ko rendi woon ba lenn ci borom xam-xam yi sax comme ni mu nar a ñëwee ci kanam dañuy jàpp ne boo rendee giléem gi baaxul donte ne boo ko rendee baax na kon noonu la reye 63 giléem jox Ali mu yeggale ko la ci des loolu dañuy jàngal ne su doon am nga kàttan dem Makka rey lu bëree bëree bëri loolu it ak jaamu yàlla la su dee jël nga téere bi ñu jël beneen bind mu ne wala yajuuzu fi cheyin min zalika awra du mën a nag baax ay di doy ci tabaski ci yiñ la tuddal yépp xar béy nag giléem dara du ci baax loo xam ne daa pat xar bu pat bu benn bët ba yàqu wala marido xar moo xam ni nii it gis nañu mu kii dafa feebar ku ko tiim xam kii daa feebar wala al arja'u bayyinu dal'uha dal'uha du it loo xam ne nii ab xar bi tànk bi dafa yàqu dafa lagaj ku ko gis xam ne kii tànk yi muy doxee benn bi lagat na baaxutul naka noonu it wala aju fa mooy aju fa boo xam ne nii la tey laa chahma fiha xar moo xam ne loof na loof boo xam ne amatul benn graisse wa yuttaqa fiha al aybu kullu doonte ne gannaaw ñeenti yi nag war nañoo moytu bépp ayib bu am ca xar moomee wala ca la ngay rey wala mashquqatul uzn moytu ca loo xam ni dafa xar noppam ba illa an yakuna yasira lu dul mu doon loo xam ni lu néew la wa kazalika alqatu ak lépp loo xam ne nopp ba daa dagg wala génn ba wala yu deme noonu wa maksuratul qarn ak lépp loo xam ne béjjinam ba dafa damm in kaana yadmi fala yajuz su dee ne bi nga koy rey deret jaa ngay tuuru mooy da doon doog a damm boobu moom baaxul wa in lam yatmi fa zalika jaiz bu dee ne nag ca tabaski ga ba muy jot fekkoon na damm-damm béjjën ba wér na dees na ko mën a tabaski kon bokk ci bunt bi dalay wax ñeent yonent boo xoon na kenn du ko tabaskee baaxul ñeent yooyu mooy xar moo xam ne benn bët ba yàqu na dalay jàngal ne kon xar mu dul gis kenn du ko tabaski mi ngi noonu xar mu dul gis kenn du ko tabaski bu benn bët ba yàqu kenn du ko tabaski xar mi nga xam ne it feebar na mu leer nañ ñi kenn du ko tabaski xar mi nga xam ni dafa lagat tànk ba kenn du ko tabaski xar mi loof ba benn graisse gisuñu ko ci moom kenn du ko tabaski ñeent yi la yonent boo xoon na moom du doy ci tabaski mu des nag loo xam ne dañ koo sib mooy daal boo amul leneen mën nga ko tabaski waaye nag sib nañ ko mooy bépp xar boo xam ne am na ayib ayib yooyee bokk na ci nopp ba moo xar ngi noonu ayib yooyee bokk na ca la nga xame ne nii moom mooy en genn ba moo dagg wala nopp ba moo dagg allahuma lu dul luñ ne paasewul ceer ba mais bu paase ceer ba rek bokk na ci loo xam ne nii soo amee leneen wuroo ko rey bokk na ci it comme ni mu ko mujj a waxee bépp xar moo xam ne bijjën ba dafa damm ca nam damme wéragul waaye bu wéree dara nekku ci kon tabaski daf ci am ñaar mooy loo xam ne yeneen bi da koo tere mutlaqan dafa patt dafa lafañ dafa feebar dafa loof mu am ca nag yu ñu sib mooy bépp xar boo xam ne am na défaut bu bokkul ak kaat défaut yi sib nañ nit ki tabaskee ko te mooy boo amee ngant man nga ko jëfandikoo sa ila axiri waaye nag boo amul ngant nga la way bul rey loolu loolu kon incha allah ñu jël beneen bind bi ci topp mu ne wal yali rajulu zabaha udhiyatihi na féetewoo góor rendi la nga xam ni mooy ab gàttam ba muy rey ci ci tabaski ga mu féetewoo ko bi yadihi ci loxo boppam mi ngi noonu ba'da zabihil imam gannaaw ba imam ba rendee ba pare aw nahrihi wala gannaaw ba imam lojee giléemam ca mooy li ma leen waxoon sànq yawma nahr ci bis bi ñuy rey la nga xam ne mooy tabaski ya loolu nag mu def ko daxwatan ca mooy ca yoor yoor ga wa man zabaha qabla an yazbaha al imam ku rendi avant imam di rendi aw yanxara wala mu lot gileemam aada udhiyatahu ku mel noonu day rey beneen xar wa man laa imaama lahum ñi nga xam ne amuñu imaam nag falyataxarru salaata aqrabi al a'immati ilayhim wa zabha nañu xool imam bi gën a jege ci ño ci ci ñoom ak rey ga muy rey ñu tënk ca seenu rey wa man daha bil layli képp koo xam ne dafa rey ca guddi aw ahda lam yujzihi wala boog mu dem makka rey la muy rey hëdiyom ci guddi loolu du ko doy kon mi ngi noonu kon mbokk day wax fii rek ne heure bu tabaski jotee ngalawaay nañu fexe kii rey reyal boppam bu la neexee rey googee nga battale ko waaye nga defaloon ko sa bopp mooy la gën ndax ak jaamu yàlla la goo xam ne nii dafa aju ci sa alal ak sa jëmm ca rasul sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ne tabaski yim tabaski yépp moom moo rendil boppam ci loxoom loolu mooy la gën waaye boo joxee ñu rendil la it loolee da ngay gis ne loolu lu baax la boo joxee ñu rendil la loolu lu baax la ah comme naka borom xam-xam yépp gisee mu ne nag koo xam ne da nga am imaam bu la jiite ci julli su dee da ngaa rendi te imaam rendeegul yow am nga yàpp waaye amoo tabaski fokk nga xaar ba imaam rendi nga doog a rendi su dee nekk nga ci dëkk boo xam ni kenn du fa julli it xaaral ba xam ni dëkk ba la gën a jege ba ñuy julli it kat julli nañ ba pare ca seen imaam rendi na su boobaa yow ngay doog a rendi lii mbokk mooy mazhab Malik waaye soo dellu woon ci yeneen mazahib yi ñoom dañ ne déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu waxoon mooy képp koo xamee ni nii rendi nga avant ngay ngay julli dama rendiwaat waaye képp koo xam ne rendi nga gannaaw bañ julli sa julli baax na ah sa rendi baax na loole da ngay gis ne moom la yeneen borom xam-xam yi wax ba lenn ci ñoom ci mazahib yi sax dañ ne waa ji imam sëlmal moom mu bàyyi fa xutba ba dem ren di xaram am na tabaski donte ne deful lu baax na xoor naa déggu la nga xam ne mooy xutba bi mi ngi noonu su ko defee daal ñu xam ni bu ñu gisee sunu mag ñi ñoom di insister ndax imam rey na ak rayul wax nañu dëgg ndax téere yi ñu jàng loolu la wax waaye nag bu ñu delloo ca la nga xame ne ni moom mooy cosaani sunna ci tegtal dañuy won ni la ñuy tere mooy rendi xar avant la nga xamee ni mooy julli ga waaye suñu borom dane fa salli li rabbika wanhar jullil nga rey kon képp koo xam ne julli na it ba pare su ko neexee mën naa rey xaram imaam rey na xar wala imaam reyul xar ndax imaam mën na jiite mbooloo mi ba pare moom ci boppam amul xar bu mu rey loolee kon di mbir moo xam ne dañ ci war a bàyyi xel bu baax la nga xamee ni nii moom lay waxit mooy tabaski ñoom ni ko mazhab Maalik gisee fokk ñu rey ko ci bëccëg kenn du ko rey ci guddi loolu mooy gën a siiw ci ñoom waaye nag nekkul ci loo xamee ni nii dafa doon dëppoog boroom xam-xam yi am na yeneen ni boroom xam-xam ñoom li ñu gis mooy ñette fan yépp foofi rey baax na ndax xam ngeen langue boo dem dafay am différence entre bu ñu nee jour bu ñu nee jour tel mën nañ ci jàpp vingt quatre heures yépp mi ngi noonu amma buñ ne le jour et la nuit yéen ñëpp xam ngeen jour ñu ngi ci jublu bëccëg gu nuit bi ñu jublu ci guddi gi wala fii it xam nañ ko mooy guddeeg bëccëg waaye buñ ne la nga xam ne ni moom mooy benn bis wala ñu ne benn fan wala yu demee noonu liñ ci jublu mooy vingt quatre heures yi mazhab Maalik nag ñoom dañoo jàpp liñ naan yawmu ñu ne kon bëccëg la kon kuy rey ci bëccëg ngay rey ku reyul bëccëg sa tabaski baaxul mi ngi noonu bokk na ci kon loolu lañu wax mu ne waaw wala ñu jël boog bind bu bees mu ne ah naam waaw wax nga dëgg de c'est que léeg-léeg dañuy xaw a fàtte ca wala ku li xaal comme ni mu ko waxee rek mooy léeg-léeg am bunt yu fasante ko mooy ñu jóge ci benn bunt di dal beneen bunt masalan romb nañu sànq buntu xar yi daggan a rey ak yi dëgganu la rey ba yëg si ci buntu waxtu wi ñuy rey ak waxtu wi ñu warta rey loolu it incha allah koo xam ne xëy na am na ci laaj bu aju ci bunt boobu tey laaj yooyu bokkul ak laaj yi ñu laaj bu darsu bi pare bu dars bi ba pare mënees naa laaj leneen mais bu dee ci biir dars bi moom dañuy bëgg kii laaj laaj li ci biir dars bi imma ab baat bu ñu tëb te dégg ko nam ko war a déggee wala boog ab masala masala boo xam ne jaaxal na ko ci liñ jot a wax bala ñuy jàll ci leneen waaw naam bismillah waaw bismillahi rahmaani rahim ku ko wax ci rey rey ga baax na waaye la mu wax wax na loo xam ne nii gënut rey kenn du ci wax bismillahi rahmaani rahim rey da ngay wax rek bismillah da ngay wax rek bismillah bokk na la ca borom xam-xam yi di wax rahmaani rahim yërmande la te yaa ngi ren di la nga xam ne mooy bàyyi ma kon yonent bi sam dina wax naan képp koy rey ci yéen a rey bismillah kon rey moom bismillah rek ngay wax amma boo waxee bismillah rahmaani rahim it teewul baax na waaye defoo la gën mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw ñaari laaj la benn bi ñu takk mag di rey xar wi jigéen yeneen jullit ñi di rey xar wi góor su ma déggul su ma wax xaw ma déggul xaw léegi beneen laaj bi ngeen baal ma dama bind jal jala si bi waaw ala kulli xaal ndax pourquoi makk rey xëy bu xar bu jigéen loolu da ngeen ko dégg ci dars bi
mooy comprendre waaw kon xëy na da nga ñàkk a comprendre waaw wolof bi waaw wala fi moo leerul waaw waaw li ñuy wax daal mooy dañu ne su dee tabaske li gën mooy ñu rey xar su dee makka nga dem nag la gën ñu commencé ci gileem nag wàcc ci suuf mais bu dee tabaske moom li gën ñu commencé ci ci xar yéeg ci bëy jëm kaw naam waa lu tax ñu ko gé- mag ñu commencé giléem jëm si suuf waaw commencé ci waaw ñaa- ñaari jaamu yàlla yi ñoo bokkul kii tabaski la bële aj makka tax nga koy rey aj makka yaa ngi ciy jublu def loo xam ne da nga ciy leel miskin yi tabaski yaa ngi ciy jublu fàttaliku li maam Ibrahima defoon ci jot doomam Ismaïl amma tabas bu dee aj makka nag yaa ngi ciy jublu mbooloo mu bëri ñu ngi fay daje nga rey pour leel lu gën a bëri ci ay miskin loolu mooy différence bi naam naam bismillah waaw loolu man ma lay laaj maanaam comme fii niñ ko miin dañ naan sunna mooy bu la neexee nga def bu la neexee nga bàyyi maanaam mën ngaa bàyyi sunna te doo ci am bakkaar ci ci loolu lay laaj maanaam day am sunna yoo xam ne am su taxaw taxawaay yu fa comme boo xoolee jiw yi ngeen xam ne daal ngeen gën a waa ala kulli xaal mbokk dafa am ñaari déggin ci sunna dafa am dégginu bu ñu nee sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu masalan buñ ne la sunna yonent bi ci julli timis mooy ñetti rakka loolu muy sunnaam ci julli timis mooy ñetti rakka loolu kenn du ne bu la neexee def kon ñaar wala ñeent déedéet sunna yonent bi mooy doxalinu yonent bi amma nag am na loo xam ne fuqaha yi ñoo koy jëfandikoo ñoom ñoo naan lii sunna la lii farata la lii mandub la lii makruh la lii nangam fuqaha yi bu ñuy jàngale masalan ci ne ni booy julli tari fatiha bi farata la saar ba cay tege sunna la loolee kon dañuy gis dañuy teqale diggante farata ak sunna bu ko defee kon du sunna lu ñuy tuddee sunna dañ cay jël boole ci lépp déedéet sunna yonente bi léppam muy diine amaa nag ci biir diine joojee la am ay yu ñu naan sunna sunna boobee nag teqaleel naa la ko sànq nee naa la ñett dafa am ñaari façon sunna sunna boo xam ne nii dañ koy tudd rek mu baax soo ko defee baax na soo ko deful it defoo lu ñu sit moo am ca nag sunna yoo xam ne dañ koy feddali mooy soo ko defee am tuyaaba ju rëy soo ko deful def nga loo xam ne lu ñuy sib la loolu nag bokkul ak la nga xam ne mooy farata kon su ko defee daal il faut ñu teqale ñaari baat yi dafa am sunna bu ëmb diine yépp looloo tax day garaaw loolu lu ñu wax ah waaye loolu sunna la loolu rek sunna rek la déedéet mu am nag lu fuqaha uy tudde sunna loolee fokk jullit ràññee ko wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw salaam kii nga xam ne gaucher la su boobaa mën na rey ak gaucheem loolee dara nekku ci bu dee ne kay moom xar mi mi ngi koy gën a jekkoo ca ab gaucheem mën na rey gauche dara nekku ci rey la ca gën a am solo mooy ñi fexe ba dalal xar mi ñawal paaka bi gaawal rendi gi loolu moom mooy jubluwaay bi gën a rëy kon waa ji bu dee ne moom gauche la bu dee ren deg ndey jooram mën na mu nekk fay kalang-kalang ba lenn ci fuqahaw yi sax ci seen taral ci dañ ko jàng ci téere bi dañ naan boo yëkkatee paaka bi sax boo ko tegaatee xar mi medd na loolu moom bu ko defee yow bu dee gauche nga mokkale mën ngaa rendee gauche daan ci dolli it ne miinuñu ko Sénégal waaye jigéen mën na ñëw rendi rendi xar xaru boppam ni mën na rendi ginaar mën na rendi xaru tabaski naam naam waala kulli xaal ñëw na ay riwaaya ñu ne yonente bi alei salatu wasalaam waxoon na Fatima jógal nga fekke fi ñuy rendee sa tabaski bi loolee kon sopp nañu ci ki nga xam ne dañ koy reyal xaram mu taxaw fekke ko waaye firiwul ni dafa war a jël loxoom di ko teg ci kiy rendi déedéet moom daal lii moo ko waroon a rendil boppam dañ ko koy rendil mi ngi def ak jaamu yàlla na taxaw fekke yéene ci boppam na ah yàlla de lii maa ngi koy rendilu ngir yow loolu mooy jubluwaay bi donte ne bu ko fekkiwul teewul am na tabaski waaye fekk ga nekk na lu ñu sopp ngir sukkandikoo ci hadis boobu nga xam ne moom laal wax sànq mi ngi noonu allahu subhanahu wa taala alam naam naam naam waaw ndax ñett ñu bokk papa mën nañu rey wala bu ñaari reyee baax na ça dépend ndax ñoo bokk benn kër su dee ñoo bokk benn kër buñ doon ñaar fukk yi bokk papa it bu kenn ko reyee reyaale na ñëpp mi ngi noonu bu kenn kër ay reyaali na yépp su dee ne kër gi benn kër la ñu boole njëlli mu nekk benn ci ñoom su reyee reyaali na yépp loolee la ñuy wax kër xëy na nag loolu bokkul ak li ñuy miin tey ci appartement nga xam ne mën na nekk dix étage ku nekk ak sa mbiru bopp loolu moom bokkul waaye dal bu dee kër gi yéen a bokk bokk benn kër bokk la nga xame ni mooy benn mbooloo su kenn reyee rek reyaali na yépp mi ngi ne ah non waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw moom loolu foofu la muskile bi nekk. waaw foofu la foofu la muskile bi nekk waaw. waaw waaw. waaw ala kulli xaal. waaw xam nga rey rey rey rey moom waaw bu ñuy wax xale yu Ndakaar li ñu xam mooy rey xar yi waaw waaye rendi xar lañ koy rendi bu dee li ñuy tuddee ay giléem loolu lot daanaka ci wolof sax xale yi ko xam day jafe ci ñoom mais lot moom mooy da ngay ñëw tolloo xol bi rek dëbb ko paaka bi su ko defee kooku dañ naan dafa dafa da rey mais rendi la ñuy def moo tax zabahe la wax mooy rendi yi ak naxra mooy lot yi jam yi loole moom ñu bàyyi ci xel bu baax mais bu dee façon reyin yooye da ngay gis ne am na ca yenn yuy dagan ci ay côté ak yu xaram ci ay côté mi ngi noonu mel ne tey nag bu rëccoon mu ne su ko jàpp ku mel noonu buñ ko fetalee bismillah dana baax waaye nag bu dul loolu kenn amul droit di def loolu waaw mbokk bi dafa mel ne ñuy mujj ci moom rek continuer dars bi bismillah waaw waaleykum salaam non ndax nekk na charte ci li nga xam ne nii mooy li ñuy rend ñu jubal ko penku loolu du ci charte loolu waaw xam naa mi ngi mi ngi ci kanam nee na nee na mi ngi ci bunt bi ci kanam incha allah bu dee mazhab Malik mën na mu wax lu mel noonu waaye nañu xam ne nekku ci charte ci ni pour xar mi dagan dañ koy jubal a penku déedéet ala kulli xaal kon ñu jël bind bu bees yaa ngi toll ci naam wa ayaamu nahr bisi rayya bisu waaw ñu wax mbo mbokk bi gën a dégg ba bi bisu rajya nahr mooy loj ala kulli xaal mooy jam ah doonte ne nahr fii dañ ciy boole tabaski dañ koy war ak tabaski ayaamu nahr bisu tabaski nga xam ne day boole rey day boole loj bi ak jam bi yëpp salaasatun ñett la yusbahu fiha des na ca rendi aw yun xaru wala ñu cay jam la nga xam ne mooy giléem ya ila xurubi shams ba ba jant ba di so min axiriha ca ñetteelu bis bu mujj wa afdalu ayaami nahr la gën ci bisu tabaskiya muy awaluha mooy bis bu jëkk ba wa man faatahu zabhu koo xam ne faat na ko rendi ga fi l yawmi l awal ca bis bu jëkk ba ila zawal ba baa tisbaar bi jot faqad qaala baadu ahlul ilm am na lenn ci borom xam-xam yi dañ naan yustahabu lahu an yasbira ila duhal yawmi saani ku mel noonu na muñ ba baa yoor yooru bëccëgu ñaareel ba wala yubaau shay'un min al udhiya diisul rey lenn ci tabaski jildun wala yubaau deesul jaay lenn min al udhiya ci tabaski jildun na doon der la wala xayruhu wala leneen lu dul der mi ngi noonu mbokk lii ju ñoon nañ ko sànq ñoom ci mazhab Malik ñoom dañ naan tabaski ñetti fan la noom ñetti fan yépp bisu tabaski la su ko defee ba ca gën nag mooy bis bu jëkk ba ca loolu it ñun bi ñuy demee ba yàlla nattu ñu lim ñu nattoo Sénégal léeg-léeg tey mooy bisu tabaski ci àdduna bi yépp Sénégal ñoom ne duñu tabaski yow nga bëgg dabu bisu julli bi ci bisu iid bi waaye kër ga nga dëkk ñoom defuñu loolu ngir bañ fitna mën nga bàyyi ba bisu ñaareel doonte ne rey ci bis bu jëkk ba loolu mooy la gën nga bàyyi ba bisu ñaareel ba léegi nag ñoom ci mazhab Malik na ma la ko waxe sànq non seulement yemuñu ci ne ci bëccëgu tabaski la ñuy rey waaye ñoom dañ naan ci yoor yooru tabaski la ñuy rey tabaski ñetti fan la waaye temps bañ cay rey mooy bi yoor yoor jotee ay fa nga xamee ne ni jant bi génn na ba nit mën a julli naa fi la ak ba baa tisbar di jot ca zawal diggante boobu la ñuy rey bu la rëccee tey da ngay bàyyi ba suba bu la rëccee suba nga bàyyi ba gannaaw suba ñoom loolu la ñuy wax ci wàllu googe doonte ne ni wax na it ni tabaski moom kenn du ci jaay dara kenn du ci jaay dara ah mi ngi noonu xam naa dañuy jël suñu waaw bind ñu jël beneen bind rek mu ne wa tuwajjahu zabiha des na jubale la nga xam ne moom la ñu war a rendi inda zabihi ila al qibla des na ko jubal ci qibla ba wal yaqul zabih na wax ka nga xam ne moo koy rendi bismillah wallahu akbar na wax bismillah ak wallahu akbar wa in zaada fi l udhiya su dollee nag ca la nga xamee ni nii mooy ca rey ga ñu rey tabaski ga rabbana taqabbal minna e yàlla nangul ñu fala ba'sa bi dhalik loolee dara nekkul ci loolu wa man nasiya tasmiya koo xamee ni nii dafa fàtte wax bismillah fi zabihi udhiyatin ca ba muy rey la nga xam ne mooy ab gàttam mooy tabaski ga aw xayriha wala boog leneen lu dul loolu fa innaha tu'kal loolee du tee ñu lekk ko bu dee da koo fàtte wa in tam taammada tarka zalik aw tarka tasmiya su dee ne dafa tey nag bàyyi la nga xam ne mooy wax bismillah lam yu'kal kenn du koo lekk wa kazalika inda irsaali aljawarih ala sayd loolu la ñuy waxit ci heure booy yónni la nga xam ne mooy la lay rëbbal ca la nga xam ne moom mooy asayd mooy la ñuy rëbb na doon jombar laak kéwal laak lu mu mën a doon kon day jàngale fii ne mbokk li ngay rendi jubale ko penku waaye nañu xam ne loolu lu ñu sopp la waaye nekkul loo xam ni dafa nekk charte ci rendi gi baax rendi gi daal la koy tax a baax mooy wax nga bismillah gannaaw ba nga daal di wax nga daal di koy rendi bu doon gilee ma wax naa la la gën ci moom du ñu koy tëral dañ koy taxawal daal di koy rendi daal di koy locc loolu mooy aju ci wàllu googee la gën ci la ngay wax bi ngay rendi mooy waxal bismillah kese bu dee ne tabaskee nga dolli ca wallahu akbar ndax suñu borom dani lu tukabbiru llaha ala ma hadaako yéen ngeen màggal yàlla ci lim leen jubal kon waxal bismillah nga wax wallahu akbar mi ngi noonu soo ca dollee it rabbana taqabbal minna ay yàlla yàlla nag ñu nangul loolee ba tey lu baax la loolu kon ñi ngi koy wax ci tabaski amma bu dee la ngay rey ngir jublu ca lekk kese moom boo waxee bismillah rek doy na bu doon te ne itamit da ngay rey ci ci ñeel sa doom bi ngay tudd da ngay wax bismillah yéene ne ay suñu borom lii yaa ngi koy reyal sa doom diw loolu la ñu wax ci wàllu googee léegi nag ki nga xam ne day rendi dafa war a wax bismillah waaw bu dee da ko fàtte nag bu dee dafa fàtte wax bismillah ñoom nee nañ teewul loolu mënees na koo lekk ndax suñu boroom baal nañu lépp loo xam ne dañ koo fàtte nga noonu baal nañu lépp loo xam ne dañ koo fàtte bu safaanoo ak yenn mazhab yi lu mel ne ay mazhab ahmad ak ñoom ñoom dañ naan kenn du ko lekk waaye mbokk suñu boroom du ñu toppee li nga xam ne dañ koo fàtte su dee da nga da nga da nga da nga fàtte bismillah dañ koy lekk amma nag bu dee yaa ko tey te jàpp ca xam naa ne ab julit naka lay xamee ni bismillah moom la ñuy reyee ba pare mu fàtte mu mu mu tey ko bañ koo wax loolu moom xam nañ ne ak fetërlu la su dee yaa ko tey moom dañ naan dagganatul nga lekk ko loolu it lay wax ci ki nga xamee ne nii dafa doon ku tàggatoon ab xajam léegi gis lu muy bëgg a rëbb ba koo jàpp danaan xaj bi bismillah su ko waxee bismillah xaj bi bu demee même bu ko reyee dagan na mu lekk ko amma bu dee bi muy wax xaj bi demal fàtte na wax bismillah su boobaa même bu xaj bi reyee dagan na mu lekk ko bu dee moo ko tey nag loolu daganul mu ko lekk loolu mi ngi noonu ñu jël deux lignes rek ngir tëj buntu boobee mu ne wala yubaau min al udhiya kenn du jaay ci tabaski wala aqiqa ak xar ba ngay reyal sa doom ca tudduma wa nusuki ak la ngay rey ci aj makka ga laxmun duñ jaay yàpp wa wala jildun duñ jaay derba wala wadakun duñ jaay la nga xamee ni nii moom mooy graisse ga wala asabun duñ jaay siddiya wala gayru zalik ak leneen lu mën a doon wa yaakulu rajulu min udhiyatihi dañoo bëgg góor lekk ca la mu rey ca tabaski ga wa yatasaddaqu minha daal di cay sarxe kemtalal kattanam afdalu lahu lool day mooy la gën ci moom walaysa bi waajibin alayhi waaye nekkul lool de farata ci moom lii day fejjale rek li mu waxoon ci kaw mbokk bu dee da nga rey xarum tabaski war nga rey xarum tudd amul dara loo am droit di ko ca jaay dana ca bokkit amoo droit fay ki kay fees ci liñ kay ci ci yàpp bi masalan kay feesal ma sama xar après nga jël der beeg bopp bi nga dem déedéet loolu boo amee da nga ko koy may waaye da nga koy fay mu mu mu feesal la loolu la ñuy wax ci tabaski loolu la ñuy wax ci ud la nga xam ne mooy gàtt gàttum ngénte tabaski nag la ca gën mooy ni mu ko suñu borom waxee rek kulu minha wa atimul qaani aw al mu'tar la ca gën mooy nga lekk ci lekk ci ak sa njaboot gannaaw ba nga jël ci maye ci sarxe ci bu dee kër caamen la it buñ jëlee tabaski lekk ba mu jeex loolu dara nekku ci moom lañ ko sopp rek waaye léegi da farat dara nekku ci su doon da ngaa rey sam xarit jox ay nit ñu lekk ko loolu dara newut ci waaye daal la gën moom mooy nga def la yonent bi doon def sallallahu alayhi wasallam mooy lekk ci sarxe ci kon loolu incha allah dañuy doy loo loolu bu bilaal nodd ba pare incha allah alhamdulilah xam naa suñu mbokk Salih Ndiaye bi ñuy toogal fii mi ngi wax na benn doomam bu jigéen dafa faatu tey yal na ko yàlla teeroo njëggal ak yërmaade te defal ko dawal bu yiw ñeel ay waajuram waaw incha allah ah ndax ki nga xam ni dafay rey tabaski pour mu yéene wala ci njaboot goo xam ne nii dañoo nekk extérieur wala kulli xaal la nga xam ne mooy cosaan de ci tabaski mooy dañuy tabaskil la nga xam ne mooy waa kër gi loolee moom mooy la nga xam ni moom moo ci cosaan ci wàllu tabaski su ko defee loolu la ñu xam ci mbir bi mais amma pour yéene ñeneen ñoo xam ni nekkuñu ci biir kër ga loole moom dëgg-dëgg amuñu ci la nga xam ni mooy dalil lañu mën a wax daal mooy waat extérieur ku ci yónnee xaalis ñu tabaskil la xamal ne yow am nga tabaski fa nga nekkit heure boo nekkee ci kër goo xamee ni nii masalan ab Sénégal boo dem këram ngeen mu rey xar ci kër ga ngeen bokk ci tabaski it loolu dañuy jàpp ni incha allah dañ koy tuddee tabaski wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam waaleykum salaam xaru tabaski niñ la waxee sànq ci xibla bi loolu la ñu waxee ci gauche wala ci droite lay jubluwaay ci rendi mooy loo gën a gaaw ci la ngay rendi gën koo dalal su dee position ba gën ci yow muy rendi mooy nga tërale ko gauche loolu dañ naan tërale ko gauche bu dee droite nga tërale ko droite la cay jubluwaay ci rendi daal la ngay rendi ne rendee na ñaw sa rendi na gaaw dalalal la ngay rendi lii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam santaane woon te rendi googe wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum suñu mbokk séeréer naam dañu leen di ba pare def si filte nekk si ñaari weer si lekk waaw loolu dagan na woon tamit
waaw waaw waaw beneen laaj waaw bi lan mooy yàlla li di tudd di wax la ñu bañ ñu gis dégg bu pare bañ añ parce que ñaan ñoo nekk ñu ñu ñu réer
wala kulli xaal yaakaar naa wax nañu sànq ci ne tabaski moom jëbluwaay bi mooy rey ko ci yàlla tax yàpp bi nag suñu borom mu ni yàpp bi du ma jot deret bi du ma jot yéene bi ngeen am moo jot léegi nag bi nga reyee sa xar ci yàlla tax ba pare su la neexoon ne jonk gett xar mi seet miskin jox leen ko ñu dem bu la neexee nga lekk ko yàgg sa njaboot loolu ñu ngi la ko may ci tabaski bu doon te ne na nga xam ne mooy ak fidiya fidiya mooy lan dem nga màkk def erreur du jotu kooku dañ naan la doo ci lekk ndax loolu da nga koy jotu ngir masaakiin yi amma bu dee tabaski suñu borom yàlla may nañu ñu lekk ko lekk li suñu borom di wax naan maghdubi alayhim yeneen ci bi alayhi salaam daana ko wax al yahud waaye nag ku yor jukko yahud ca nga bokk maghdubi alayhim mooy ki xam li yàlla bëgg xam li yàlla bañ ba pare mënu ko fa ñukk def la ko neex kii mooy maghdub alayhim amma wala daalin mooy kuy jaamu yàlla ci làmbatu jàngul jàngaanul di jaamu yàlla ci làmbatu ñooñu mooy wala daalin ñaar yooyu yépp nag jurit da ko war a moytu jurit dafa war a xam ne njëlbeenu la ko war mooy jàng diineem ba xam ko mi ngi noonu doogo dem di jëfe diine mi ngi noonu wala daalin mi ngi noonu naam waaleykum salaam waaw rajo yooyu noonu ñuy def màgg ñu ne duñ ci lekk te des fois dañuy gis dañuy gis ne des fois dañuy jël yàpp yi jox ko ñi nga xam ne ñoo nekk foofu di def restaurant ñu jaar jënd ko pare sobu ko ñi nga xam ne ñoom joxe nañ yow kay ñëw jënd ci lekk la nga rëy ca makka bu la neexee nga lekk ci la ñuy tere mooy la nga jotoo fidiya daa bokkul ak la nga xamee ni nii mooy hëdd yu ba ngay rey ki nga xam ne dafa def tamato wala yooyu ku mel noonu rey ga muy rey da ciy jublu jaamu boroomam loolu bokkul ak nag ki nga xam ne dafa def erreur masalan wattu na fu mu warta watoo wala rey na saydu mooy ak ak rëbb wala yu deme noonu nga xam ne loolu punition la buñ ko teg maadaama fidiya la punition la buñ ko teg dañaan ko lii moom doo ci lekk amma bu dee ne la nga rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee Makka ba rey fa téeméeri giléemam giléem bu nekk dañ caa jël benn morceau ñu boole yépp ci benn cin bañ ko toggee tibbal ko ca mu naan ca ñeex ma lekk ci yàpp ba kon la nga def ci makka mën nga caa lekk suuf loo xam ne ni fidiya la buñ la teg punition naam naam bismillah naam ala kulli xaal ndax jaamu yàlla yu tegaloo loolu koy bari na bari na lu mu mën a nekkee masalan comme li mu wax yonent bi alei salatu wasalaam dane nit ki bu toogee di xaar julli jot malaaka yi dañuy julli ci moom allahuma agfir la allahuma arhamhu di ko ñaanal mi ngi noonu fii mi ngi toog ànd ak njàppam ndax ci toog di déglu dars bi di xaaraale julli gi day boole ñaari ngëneel yëpp ah kay day boole ñaari ngëneel yëpp loolu mi ngi noonu su ko defee bëri na jaamu yàlla yu bëri yu boole ñaari ngëneel ñu mel ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kenn ci bu duggee ci jàkk bu mu toog lu dul mu julli ñaari rakk muy tahiyatul masjid léegi yow yaa ngi ñëw ci jàkka ji julli goo ñaari rakkay tisbaar nga yéene julli ñaari rakkay tisbaar def ko tahiyatul masjid ci ñaari jaamu yàlla yëpp dugg na ci benn jaamu yàlla kon loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah naam waaleykum salaam ndax waa ji fees ëf xar mi ba der bi teqalikoo yàpp bi mu doo koo fees alakuli xaal loolu dara nekku ci loolu moom dara nekku ci lu dul ñu ragal ni moom mi ëf ànd ak feebar waaw lu dul ñu ragal moom mi ëf ànd ak feebar mais daal bu dee ci wàllu sharia rek ëf boobu day tax der bi gën a gaaw a teqalikoo yàpp bi rafet du ànd ak kii waaye nag bu dee daal dañu ragal ne feebar mi ngi ci moom moom bu warul nekk di ëf nga xam ne léegi ngelaw bi day wër yàpp bi yépp loole mën na jur la nga xam ne mooy fitna wallahu subhanahu wa taala alam waaw xam naa bismillah waaw waaw xam naa mbokk ñu mujjee ci laaj boobu rek ba yàlla dajalewaat ñu fi beneen yoon loolu wax nañ ko ci biiru dars bi loolu wax nañ ko ci biiru dars bi su doon lu mel ne mazhab Malik ñoom dañu naan kii rendi bay yàgg mu tegge paakaam ñëwaat di rendiwaat loolee dañ naan dafa métti loolu moom moom la ñuy wax ba nga xamee ni ñoom dañ naan sax booy rendi paaka bi te dagg dañ naan da nga ciy teg paaka bi noonu beneen waaye ñoo roofal la beneen paaka dégg nga ngëb ko noonu daal di koy rendi waaye loolu mooy mazhab Malik ay waxi borom xam-xam la ñu nangu leen seeni xam-xam waaye nag wax dëgg yàlla bu ñu delloo ci cosaanu yeneen ci bi alei salatu wasalaam da doon wax naan man mooy ma anhara dam wa zukra ismullahi alayhi fakuluhu lépp loo xam ne tuur ngeen deretam tudd ca turu yàlla lekk leen ko loolu daal kon mi ngi noonu mooy yow wóoroo cee jublu di rendi di tegg pàkk bi di yeexal rey googee dañuy wax ne kon yaa ngi rey reyin bu ñaaw waaye daal bi ngay ñëwee wax nga bismillah dagg nga put gi dagg ñaari sidi di ko ëpp di ko romb loolee mbokk da ngay gis ne doon na loo xam ne nii du daggana lekk la mi ngi noonu mbokk julit wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain